Samba Gelsi, Samba yàlla suñ mbokk yi nga xam ne fii ci Gambia radio television services gannaaw bu ñu santee yàlla di julee ci sanga-sanga yi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sans nekk dañoo sant suñu ñaari waajur di sant suñu wasila di Seydi Ababacar si yàlla taas ci barkeem yokk a leeram waaye sans nekk suñ fa jógee dinañ bëggee ki nga xam ne moom njabootam ak képp koo xam ne yaa ngi topp ci gannaaw fan gu guddaa wér gu yaram guñ mën a yóbboo suñu réew bi ci kaw ca yàlla may leen wér bañ delluwaat seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoo ñu foofu ca bar sax ñu ñaan ki nga xam ne mooy buur bi yàlla mu may ñu wér ak kattan koo xam ne saa su nekk soo leen gisee suma bopp bi daal di gis makeup bi ngeen xam ne waa Sambène coiffure ñoo fa jaar kooku nga xam ne mooy yéey sa Jawara ak xale bi nekk foofu na ca Fajara Atlantic Road gis ngeen tey rek ñetti fóol si nga xam ne moom rek lañ def waaye nag di bëggee ki nga xam ne mooy Badara Cuun mi nga ne moo dal di ñaaw rek daggit bi rek na ma nga dem toog ci télé bi ma di ko bëggee bu baax waaye ni maa dafa yéen mooy tey na dama fi am gan gu mag ma am keneen koo xam ne ni dafa amaat feneen foo xam ne ni foofu la génnewaat ci togga ba tax na ndey dama laan naan ñu ngi laa nuyu fay naa leen maam Ndeye Ndeye Touré. Mm-hmm. waaw tey nga toggal ñun tamit lu nice. Mm-hmm. ñu bëggoon nag ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan de nga nuyu wante ñoom balaa ñoo door programme bi. dëgg la nuyoo maam. waaw nuyoo ñëpp ñi seetaan GRTS. dëgg la. Mhm. di nuyu suma directeur. waaw di nuyu suma boss. waaw nuyu ñëpp daal di nuyu ñëpp. Mm. loolu am na solo lool ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen nag ñoo seetaan wax naa leen ne dafa am jamono joo xam ne léegi-léegi daf cee lool ñu dal di def waaye tey ndey daf ñu indi li nga xam ne ni ca jamono maam ñu ba léegi panquette du mu sa sàlli muy panquette dugub mu nekk panquette boo xam ne tubaab fakkàlla macha allah li ci war a am yëpp am na ci dañoo àndaa ndey ñu seet panquette dugub bi nga xam ne moom la ñu toogal waaye buñ ci delloo ñu daal di tàngal diwlin gi door léegi di boyalaat fourneau bi pare xooy dugub gi pare ñëw nag rek di fray rek jox si rasise muy lekka ne lañ ko seetaan <laughs> ni li nga xam ne ni mooy panket panket bi nag wax naa leen ko panketi dugub laa nekk waaye li ci war a dem yëpp ndey dinañu ko wax wax naa leen ne jamono ji foog ma jàppale jeej gi ne daf si am solo lool léegi léegi nga panket ci biir kër gi xale yi lekka ah. ba tax na ndey ñu nga am yow tey naa leen maam tey nag ndey lan nga ñu fas yéene toogal panketi dugub lañu fas yéene toogal tey waaw panket bi moom lan la dee àndal panket bi dugub la waaw foriñ foriñ nga def ci nana nana sukur bané bi. muskaada bi. baking powder bi. Mhm. ak sukur bu em rek panquet dugu bu ko warta saf sukur bu ëppa. ah panquet dugu warta saf. sukur bu ëppa. waaw sukur bi dafa wara em. dafa war em ay waaw. way hoyal bi tamit. hoyal bi tam waruta tik. waruta a yolom waaw dafa wara em rek. e pare din nga war ko fry tamit. waaw dang ko fry so pare. hmm nga ko fry so pare di nga am man dama foog ne dugub bi kese rek la day am. dit dina am sukur wané dina am muskaada dina am nana waaye farine bi waaye farine bi moo ma si jaaxal waaw bi da nga ko si war a def because mooy tax mu jóg mooy tax mu jóg waaw waaw suñ mbokk yi nga xam ne yéen nag ñoo seetaan dégg ngeen li nga xam ne moom la Ndeye Touré wax tey mu ne tey panketi dugub la toogal waaye dañ koo bàyyi ñu seet naka laa xuuyalee ba nga xam ne nag suñ paree la jublu ci fry bi ndaw nañ la bàyyee waañ déggum man nag xam naa ne maa njëkk a mos balaa keneen di mos balaa os di mos waaw def naana bi naana dafa baax si panket da koo yóbbu beneen goût